ndax euh, vraiment lii moom fitna fitna la pour tout le monde ah pour tout le monde euh, di euh, rek masawu aussi waa Ngor ci lii di masawu aussi ñu dëkk ci voisinage bi ñëpp. li ngeen gis tey nag am na lu ci ëpp sax yéen ko filmé seen bopp yéen ko gisal seen bopp. li xew nag lu lu simple la en fait le premier mars bi ñu jógee. Euh, les autorités de la gendarmerie dañu décidé ne dañuy délocaliser brigade bi nekkoon Ngor brigade bi moo nekk nii seen gannaaw en face de la mairie et raison bu ñu avancé mooy ne zone bi seen une zone inondable donc ça fait dix ans à chaque année day chaque fois day inondé donc ñoom seen kilifa yi jàpp ne mënuñu nekk chaque année ñu inondé bu jeexee ñu toogaat muy continuer dañ leen di génn fii bu ñu amee fu gën foofu ñu dem fa et ñu demandé ñu nañu bu fekkee am nañ fu gën foo foo xam ne du inondé suñu leen ko joxee ils vont donc euh, ñu rencontré le général Moussa Fall échange ci ak moom ne ko nag gendarmerie mënul ñàkk ci commune bi il faut gendarmerie am fi parce que la sécurité des gens est importante moo nañu comme brigade bi dañ ko délocaliser li ñuy def le compromis qu'on trouvera mooy dañuy def une brigade provisoire je précise hein une brigade provisoire boo xam ne ça va être construit ak ay conteneurs xam ne dañ koy teg suñ paree ba jubo ba am feneen ñu teg ko yóbbu e bu ñu ñëwee xool ñu proposé leen ñu wax ñu ay site ñu identifier benn réunion ak jaraaf bi ak imam yi ak frais yi ak notabilité yëpp ñu identifier ay sites yu bari yu nekk ci commune bi parce que boobu population yi ñu ngi doon wax ne il faut brigade am fii parce que insécurité bi dafa bëri donc ñu identifier sit yooyu yëpp ne nañ dem rencontrer ni waxtaan ci ak ñoom ba xam ban site la commune bi man a joxe pour ñu def fa une brigade de gendarmerie donc sites yi ñu leen proposé woon yi nga xam ne commune bi mën na ci délibéré parce que aussi commune bi buy joxe commune bi mënul xëy joxe suuf pour mu joxe suuf day woote conseil municipal bi ñu délibéré ne jël nañ suuf bi jox ko tel institution. donc euh, ñu ciblé li ci yi leen proposé ne am na yoo xam ne mën nañ leen ko jox parce que mën nañ ci délibéré rapidement mais am na yeneen yoo xam ne amuñu ci information bu leer ba mën ca statuer parce que ça fait un an bi ñu falo ba léegi ñu ngi demandé urbanisme ak cadastre pour ñu jox ñu plan de masse commune bi. pour ñu mën a xam lan moo fi nekk titre d'état lan moo nekk titre privé lan moo nekk nangam ak nangam lan moo nekk équipement lan lañ prévoir pour hôpital pour jàkk pour yooyu yëpp ça fait un an amuñu benn réponse donc ñu ne leen mënuñu leen ab jox loo xam ne amuñ ci maîtrise lii xam nañ ko maintenant nag yeneen sites yi ñu ciblé te xam ne man ngeen ñu wutal information yi wuti leen information ngeen andil ñu ñu toog ñun ñëpp ñu xool lan moo gën a yell ñu jox leen ko xam ne du léser population yi du léser kenn et ñëpp dinañ ci gis seen bopp ci jàmm ak salaam et surtout pour ñu mën a garder sécurité wu commune bi et loolu nag biñ ci waxtaanee le général ak la colonel Abdou Mbeng bi nga xam ne moo doon jiite euh, waxtaan bi mu nañu moom li mu bëggoon mooy parking bi parce que moo gën a stratégique sur le plan intervention foofu moo leen gënal foofu lañ bëgg ñu ne ko ñun mënuñu laa jox foofu parce que amaguñu bu leer il faut ñu vérifier ko parce que loolu si administratif il faut ñu vérifier xool ndax déjà bu ñu gisee ne déjà lii mooy nature bi ñu xool est-ce que d'accord nañu wala d'accord ñu pour jox leen foofu ak bu ñu leen di jox lan lañ leen fay jox est-ce que dañ leen di jox 300 mètres carrés 500 1000 mètres carrés wala lu ëpp loolu. bi ñu waxee loolu ba tënk ne comme brigade bi dem na te sécurité foofu mu am léegi nañ accordé wu ñu andi brigade provisoire bi teg ko foofu ay conteneurs yoo xam ne ñoom ñooy gérer la partie administration ak main courante bi le 6 mars. le gouverneur invité ñu man ne fa keroog ànd ak jaraaf bi ànd ak imam bi ànd ak euh, l'ancien maire parce qu'il fallait faire l'historique de ces sites qu'on avait proposé ànd aussi ak ay notabilité ci dëkk bi bi ñu demee fekk fa le le mu recevoir ñu fekk fa le préfet de Dakar fekk fa le colonel Abdou Mbeng bi nekk euh, commandant de légion fekk fa aussi Sabouri Ndiaye bi nga xam ne moom mooy jiite Descos fekk fa aussi Mahim Ndiaye ak euh, waa CADAS waa urbanisme ak benn représentant Ageroute ñun ñëpp ñu toog waxtaan mais ci biir waxtaan bi ñoom li ñu bëggoon mooy brigade provisoire bi nañ ko def ci parking bi bi ñuy waxtaanee loolu en attendant ñu mettre une commission te loolu gouverneur de Dakar moo ko proposé ma koy ma koy may saluer démarche am parce que li mu wax mooy ne biñ ñoom bi ñu waxee parking bi dañ ne leen ngor amatuñu dara lu dul parking bi mënuñu seetaan di ko jël di ko joxe il n'en est pas question mënul nekk on a aussi des projets parce que fii brigade bi nekk doon inondé mook mairie bi ñoo jàkkaarloo mairie bi aussi day inondé on va sortir la mairie jëlee ko fii yóbbu ko foofu Ngor également amuñ c'est la seule commune dans le département de Dakar amuñu sax CM bay am lycée on a besoin d'espace pour construire un lycée état li mu ñu joxoon bi ñu ko laajee suuf ce que l'état avait donné c'est deux parcelles benn bu nekk Yoff ak benn bu nekk Wakam on a lycée Ngor lañ bëgg biir Ngor armée yi aussi armée Ngor yi cimetière dafa fees fi may wax ak yéen ni bu nit décédé pour ñu enterrer ko dañuy dajale ay osma puus ko boo gas foo gas osma ngay gis dañ koy dajale puus ko rob mu nekk lu raglu lu seexlu donc on a besoin d' mais ni ñu bëggee espace aussi pour def ay infrastructure il faut aussi dëkk bi am sécurité aussi donc bañu ñu joxe mais nag dañuy joxe si li nga xam ne loolu lañ am mun nañu d' accord léegi li ñuy def on va mettre en place une commission boo xam ne dinañ recenser dans toute la commune les titres de l' lépp li nga xam ne état moo ko moom dinañ ko recenser on va demander à ce que loolu ñu jël ci li ci ëpp ñu jël ci wala ñu jël li ci ëpp wala ñu jël lépp ñu jox ko commune bi état aussi mën am lu mu jël jox ko gendarme bi ñu def fa brigade cest à que loolu kay c'est de bonne guerre c'est une très bonne chose parce que ça fait un an ñu koy demander mën nañu ko am mën nañu il va mettre en place une commission waaw ah, loolu lañ fa tënk donc nañ def brigade bi en format conteneur je précise xam ne dañ koy teg di ko teggi léegi ngeen xaar ñu mettre en bi ñu ne ko d'accord loolu baax na parce que sécurité population yi ko bëgg il faut mu am en attendant ñu am surtout ñu d' accord ci donc bi ñu d' ci loolu à notre grande surprise gouverneur woowaatuñu parce que il a eu bu ngeen seetloo fan yi y a eu ay mouvement peut être impôt et domaine nommé fa keneen ku bees peut être que ça a retardé ou pas je ne sais pas mais gouverneur woowaatuñu donc barki démb ñu xëy dimanche bi mhm. ci bëccëg bi gis ko fa sotti béton ak fer ak ñu ne ku fi teg li ñu ne gendarmerie ñoo ko fi def maire bi amul information jaraaf bi kenn informé wu ko imam bi kenn informé wu ko informé wuñu kenn ku newoon ci ndaje moom ah ñu jàpp ni comme c'est dimanche xam naa lundi dinañu informé le lundi ñu andi pocalin buy gas c'est dit que mais lu xew mais en toute responsabilité aussi dinañ xaar c'est l'administration dinañu woo ba xam lu xew le lundi soir hier ci guddi ñu gis ne am na oto bu fa nekk di wàcce brique bu ñu xëyee nag ñu ne xaar parce que ñun li ñu waxoon mooy une brigade provisoire construite avec des conteneurs bu ñu gisee ciment bu nu toll ak béton bu nu toll ak fer ak suuf te gisuñu fi benn xottu conteneur mais ça pose problème bu subaa nañ fa daje def un point informer ñëpp informer l'autorité ne ko ah ñun kat lii lañ tënkoon waaye gis nañ ne am na leen lu xew loo xam ne xamuñu lan la parce que bëgguñu aussi accuser kenn bëgguñu avancer ci dara ñu ne loolu nañ dem def ko ce matin loolu moo ñu fa yóbbu bi ñu yegee on a la question dëkk boo fa nekkee même bu fekkoon lii titre d'état nekk ngor te ñu doon ci waxtaan bu fekkee état da ko jël sax jox ko gendarmerie dafa war a informer la commune que lii lañ doon waxtaan on a pris tell décision bu ñu leen ko joxee bu ñuy construire yow journaliste bi booy tabax sa kër da am autorisation de construire. boo ko déposé maire bi day vérifier ndax fi nga bëgg a tabax yaa ko moom nga andi kayit yi wane yaa ko moom ñu xool ndax légalement man na nekk ñu door la autoriser. donc ce matin le service technique dem foofu pour rencontrer ñu fa nekk laaj leen est-ce que am ngeen autorisation pour construire xanaa balaa ngay gas ak di tabax di nga am autorisation même bu dee aménagement la. Hmm. xam di nga am autorisation. faale ñu leen tontu ñu leen ma ànd ak jaraaf ak imam gis fa kilifa gi fa nekkoon dem ak moom pour waxtaan ne ko population yi dañu bëgg a xam parce que ñun bi ñu jógee ci général Moussa Fall ba tënk ne dañuy def brigade provisoire ci ay conteneur le soir l' après midi dañu def un point def information wax waa dëkk bi ne leen lii lañ fa jëlee on a prévu de fair une brigade provisoire en attendant ñu am site bu ñu leen jox donc bu ñu demee ba gis lu wuuteeg li nga xam ne moom la ñu waxoon il est normal que ngeen informer ñu parce que population yi ñu ngi ñuy interpellé du ñu laajte ñun mënuñu ñu avancé ci lu ñu xamul. ça fait deux trois lu mais par respect population da nga leen di nangul ne c' à l' information. donc mën nañ mer am na lu fiy xew nga yëg yëguñu demee noonu am na ci ñoo xam ne peut-être ak ay xel yu xaw a doy waar jàpp ne peut-être da wax ci suuf lii et je précise di ci profité di leen ko wax ñu noonu du ñu wax ci néeg lii génn ci biir wax la le bu ñuy wax li am rek la ñuy wax bi ñu jógee ci le général li fa am lañ fa wax loolu la ñu wax lii bi ñu fay dem c'était pour am information pour wax population yi ne leen lii moo fa xew mais avant ñuy yeggale di laaj on nous a gazé ñun ñëpp man y compris le le le jaraaf imam bi. man li xam mënul nekk man mënu ma nekk l'autorité de la commune nekk le maire de la commune nekk sama territoire ñu may gazé sama territoire di ma wut naan ma yemal fii dugal fii génnal fii non. bu fekkoon kër jàmbur la xam ne c'est un domaine privé ba ci yenn circonstances j'ai le droit et l'obligation d'aller ba xam loo xam ne nee nañ ci li ñu wax c'est un titre état ku ci gën a commune bi la commune est démembrement de l' état et l' composé de la c' la nation ñun ñëpp ci ñun ñëpp ñooy état ñun ñëpp ñun ñoo nangu nekk nation nangu nekk dëkk état di door bu ñu nangu woon ku ne dem sa côté état doon état mooy ñun ñëpp donc état bu amee patrimoine patrimoine du Sénégal yëpp ne serait-ce que loolu rek waroon na tax ku ne man faa yegg laaj man su ma nekkee maire il se passe des choses dans ma commune c'est minimum on nous a gazé loolu moo andi mbir ah, xale yi nag ma leen di masaw xale boo woo nekk déglu ma ma waxtaan ak ñii mu lay déglu mu seen ñu tiire gazé meeram i imam bi ngay jiite juma gazé jaraaf bi borom dëkk bi mais xale boobu du sax di déglu du xalaat ñuy masawu xale yi di masawu ñëpp ndax ñun nag on est promoteur de la paix et du dialogue depuis chaque jour réew mi fi mu toll nii ku ci dox dox ci jàmm c'est assez tendu rawatina ndakaaru ñun fii lañ dëkk ñun ndakaaru lañ dëkk du ñu dem fenn amuñu feneen sax d'ailleurs bu réew mu doon tàkk ku ne da ngay dellu sa dëkk ñun duñ génn fii lañ dëkk man Seydina Limaamu mooy sama maam fu ma am Ndakaaru ma ko gënal du ñun ñooy contribuer ñu taal fii kuy taal nga taal sa kër maam fii Ndakaaru la dinañ fexe def fi jàmm donc depuis toujours ñun ci loolu lañ nekk jàmm jàmm jàmm jàmm et puis on est demandement de l'État ku déglu discours du président la République à la fin il avait fait appel au, au, et je l'ai dit aux autres man leen yéen yéen a war a nekk le premier à promouvoir li mu woon wax ci discours am prenez la paix et le lii nit yi dañu bëgg xam donner l'information même bu fekkoon état dafa décider dafa jox gendarmerie fii mais ayez le courage de dire que état moo jël lii lépp jox ko gendarmerie kayit yaa ngi nii bu boobaa les populations yi vont apprécier buñ ko nangoo buñ ko nangul ak nan lañ ciy taxawee loolu c'est libre à chacun d'interpréter noo ko bëggee hmm. mais mënoo leen ñëw ñun yëguñu tindiñu amuñu information woowoo leen ñu waxoo leen ñu xëy di gas et puis tout le périmètre du du, du parking ci ñoo xam ne il devait utiliser une partie du parking ak ay ay ay conteneurs fii brigade bi ñu newoon matul sax 200 mètres carrés je rappelle bi ñuy def suñu suñu négociation yi ak le le colonel demande bi mu defoon mooy ne dafa waxoon ne bu ngeen ma joxee 500 mètres carrés la gendarmerie va construire sur fonds propres ma ne ko non 500 mètres carrés amul ci commune dafa bëri fi ngeen nekkoon matul sax 200 mètres carrés on peut peut-être donner 300 mètres carrés parce que nag sécurité daf ñu amal njariñ ñun lool mu ne ma d'accord ñu ne ci yool di waxtaan et ça c'est matin. l' après midi mu def recherche documentaire ñëw nañu noo man dama yaakaaroon fii commune bi moo ko moom mais gis naa benn këyit buy wane ne fii commune bi moom ko état moo ko moom comme état moo ko moom du ma leen laajati damay jël lépp on a échangé quand même sur le coup de la rue wala ne ko non mënoo jël lépp donte état ko moom gën nañu see yow ñun dañoo projet foofu donc état mën naa ñëw ku ne sañ ngaa wax ne bëgg naa nag gendarmerie sañ naa wax ne bëgg naa fii sur le plan stratégique parce que moo gën maire bi ne bëgg naa fii keneen ne bëgg naa fii parce que on a reçu fii ay privé yu demandé woon état bi foofu pour def ay projet l' ancien maire fekk naa ci bureau bi benn projet boo xam ne c' était pour le siège d'une institution bëgguma ko tudd bu ko bëggoon def foofu aboutirul parce que y a toujours des blocages donc ñun aussi soo ñu laajee 500 mètres carrés ñu ne la mënuñu jox 500 300 lañ mën a joxe nga d' accord ci boo bëggee xëy nañu parking bi ça fait 6380 six mille huit cent six mille huit cent mètres carrés ci brigade quand même fi ñu nekkoon matul deux cent mètres carrés te pourtant ñu ngi fi depuis dix ans nga ñëw nga ne da ngay jël six mille mètres carrés def fa brigade si day poser problème ñun ñoo gën a bëgg ñëpp sécurité parce que fi lañ dëkk fi lañ dëkk et puis on est très républicain les institutions de l'État les institutions ñun dañuy promouvoir ci seen ñu am am am taxawaay bu rafet ak nit ñi gisee leen gis bu rafet waaye nag démarche bi baaxul. lan mooy indi dal bi dal li ko andi ma ciy profité di di di di remercier le le le comme légion le le commandant Abdou Mbengue bu ñu demee gis ko woo naa le gouverneur également expliqué ko li fi xew ne ko nag gouverneur lii nekkul lu ñu tënkoon sa bureau. lu ñu tënkoon sa bureau mooy dañ fiy def ay ay conteneurs sur une partie du parking waxtaan. nga jël commission bu wër ci dëkk bi identifier les les terrains les d'état ñu toog waxtaan xool lan la ñuy jox commune bi bu dee dañ ciy jox gendarmerie lan la ñuy jox gendarmerie. loolu la ñu tënkoon mu ne ma effectivement loolu la ñu tënkoon man ne ko ñun li ñu gis fii dafa wooteek loolu. dañu gis ñu koy gas te gas bi ñuy gas dafa mel ni parking bi yëpp la ñu nekk di gas. gisuñu fi xottu conteneur ciment fi nekk ak béton ak loo ak brique donc ñun bëgg nañu xam mun nañu baax na le colonel également ñu dem fa tout à l'heure on l'a vu on a ko li tax yi génn. ne ko nag ñu toog di ñëw ñun ñu ñëw pour waxtaan yow aussi ngay ñëw pour waxtaan ñu ñuy gazé population yi ñu ay jeunes ñoo ci ëpp. ils ont réagi ku ñu sànni xeer fii ñoom aussi ñu tiré lacrymogène et c' est ñu waxtaan ne ko nag lii lii andi jàmm mooy yéen déjà sa éléments yi nañ arrêté li ñuy def ñoo leen koy ñaan nañ arrêté. ñun aussi ñu wax population parce que amuñu ñun benn bu ñuy joxe ay sañ nañ la ko ñaan ñun ñu wax ak population yi ne leen xaar leen waaye nag nañ ñëpp arrêté li ñuy def liggéey bi ci parking bi. arrêté leen parce que comme moo andi coow li arrêté leen population yi arrêté sa élément yi dellu ginnaaw bu ko defee ñu dem ci gouverneur ñun ñëpp ñu toog parce que dañ fa waroon delluwaat bu ñu defee étude bi nañ fa dem toog ñu continuer li ñu doon def recherche documentaire bi xam lan la commune bi lan la état moom ci commune bi lan la ciy jox gendarmerie lan la ci jox maire bi lan la ciy jox keneen lan la ciy loolu mooy li ñu commencé woon nañ ko yeggalee noonu o a prôné le dialogue au début biñ fiy ñëw jàmm rek fi amoon donc nañ continuer dialogue bi bu ñu yeggee nag ba ca supaandaw la quelle soit la décision qui a été prise l' état reste l' état il donnera information ku nekk dégg ko noo ko apprécier apprécier ko mais démarche bi rafetluwuñu ko ñun dañu prôné dialogue ak jàmm ndakaaru fi mu toll nii neexul réew mi neexul nañu continuer vraiment ma leen di continuer di leen lancer waat cet appel là lancer appel population yi nañ ñëpp def ndànk ñu dem ak jàmm ñun nekk ñu autorité yuy jël lu réew commune bi moom di ko sànq ci biti lu genre boobu ñun suñu rôle mooy jëli ci biti andi fii donc du ñu def leneen lu dul loolu vraiment di leen remercier di leen masawu yéen itam presse bi parce que gis naa depuis ce matin yéen a fi malgré mbir yi condition de travail yi ñu ngi di masawu di masawu aussi population yi parce que Ngor ko xam xam ne à partir de 15 pratiquement ñëpp fi la ñuy jaar jour ouvrable day bëri circulation donc tey certainement ñu bëri waroon am ay rendez-vous ils le rendez ñu waroon voyager a faju xale woon et ñu ngi leen di masawu coono ñoom ñëpp wax ne waa Ngor génn ñu pour baare tali bi pour fii ay barbares ñu fi ñu violents nekku fi ñu républicain ñoo fi nekk ay nit ñu responsable ñoo fi nekk. maintenant nag am na yoo xam ne bu amee mënoo maîtriser foule bi ils vont partir dans tous les sens mais yàlla def na ci jàmm calmer nañ on va continuer le dialogue on va continuer à échanger lépp loo xam ne tënk nañ ko ci ba xam ne lii lañ wax incha allah dinañ génn wax leen mais daal vraiment ñuy wax gendarmerie y' a pas urgence loolu laa bëgg t tëjee lii y' a pas urgence y' a pas péril en demeure fii ba léegi. mënoon nañ fi toog tawul bu fekkoon dafa taw ba ñu inondé génn nga di non inondation tawul ban taw moo fi am lu fi wis fi tawul donc y' a pas urgence war a ñëw tey tey tey laajoo kenn kii di gas di toj di dem amul urgence. et réew mi communes yi en profite pour le dire wax naa ko devant le gouverneur colonel ngi fa woon on a tous ma ne ko gis nga ñun kenn du ñu fekk fi ñu toog nañu par force dama lay sécuriser amul fen forcément lay sécuriser ki taamu dóor la bal pour la ñun ñoo bëgg ku ñu sécuriser d' kan moo ñu mais ça peut la police fii bu fekk police a gën a yaay sax fii Ngor c'est la commune qui abrite le plus d'expatriés à Dakar on a besoin de la police des des, des étrangers tourisme Ngor bii Ngor mooy c'est la première destination touristique de Dakar donc tey am fi brigade am police touristique bu bu bu moo gën a yee ku xam Ngor xam ne boîte de nuit restaurant yëpp dafa déplacé vers le centre ville vers ici donc ak plage ànd ak mœurs yi donc tey Ngor ku fi dëkk gis ngeen extension bi am ci aéroport bi la population va doubler ou tripler dans cinq ans tey Ngor boo bëggee carte d'identité parcelle nga koy wuti jee donc tey amul fi commissariat de police moo ko doon yàlla sax ku bëgg kayit wute ko fi embouteillage yi am fi amoon fi compagnie bu ñuy gérer loolu kay police mais moo gën a yomb moo gën a yay mais ñun on est légaliste on est ñu bëgguñu lees kenn na ñëpp nekk ci jàmm waaye nag bu ñu force lii rafetul vraiment rafetul population yi ñu ngi leen di gërëm bu baax ci nangu gi ñu nangu ak dal gi ñu dal delluwaat seen kër yi toog vraiment ñu ngi leen di gërëm bu baax ñoom ñëpp loolu parce que c'est responsable nit ñi dañuy nekk di indexé waa Ngor comme ay barbares ils le sont pas ay nit ñu responsable lañu ay nit ñu sage lañ maa ngi leen di gërëm bu baax di wax ne vraiment la commune restera ouverte information bu ngeen ci fuñ ci toll on continuera à communiquer parce que les populations ont droit à l'information et les Sénégalais aussi parce que ñi ñu fi téye tey am nañu dëkk Ngor c'est des Sénégalais ils ont droit à l'information ñu war leen wax la gendarmerie c'est une institution tout comme la mairie on est une mairie de plein exercice donc loolu il est bon de le savoir ñu ngi sant ñëpp di di di di gërëm ñëpp di ñaan suñu borom lii ay bi yàlla na fi yem yàlla na fi yem kenn ñaanul yàlla fitna encore mooy sa dëkk ñu ngi leen di sant bu baax ñu ngi leen di gërëm bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullah